salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ku nekk surtout ak sant tey ñu ngi fii si yaraax c'est si koo xam ne kenn dootu ko présenté si li muy def mën li muy def macha allah doon xale bu ndaw nag macha allah donc dañ ñëw seet si mu génn lu koy bàyyi juste mu présenté wu ñu xuus si waxtaan bi. Eh, salaamaaleykum président ak la from Rahya from Saafi Saafi di bëgg ab gars yi seetaan Hann TV yëpp jaajëf. kan mooy président ak. Eh, président ak benn artiste la. juddoo yaraax maagee yaraax commencé samay début carrière ay année 2012 euh c'est année 2012 tamit en même temps man defoon ben groupe man ak la Sikri groupe bu tuddoon FF Crew gars yi bari xam ci game bi parce que do doon wacc ci sa fa yi ci compétition yi quoi. Mhm. et par la suite ñu dem ba 2016 si la gëna officialiser sama carrière solo quoi. Mhm. génne won ben son man kasse tudé ko woon Sow pour marquer sama dugg ci bir game bi quoi. Mhm. léegi du ce fait dama doon wàcc tamit ay dakaar sa ndey saay fa mhm. bokkoon benn concours bu ñuy wax Buuru Mike mhm. qui était une une initiative du groupe Walf TV mhm. nekkoon finaliste Sorano lañ ko defee woon par la suite may wàcc si terrain bi di dem ay dakaar sa ndey saay fa di repousser seen affaire yi ba gars yi xam ma foofu noonu quoi parce que je peux dire que su ma resté woon yaraax kase kase kase gars yi duñ xam président Mike parce que yaraax kase xam nañ président Mike moo tax ma xaw a am quelque tour bi ma am si game bi noonu quoi 2017 eh, 2018 bokkoon benn benn concours bu ñuy wax challenge. Mhm. et eh, par la suite ci laa ñëw tamit. 2019 mhm. ba fi ma toll nii. Mhm. génnee sama premier projet solo tuddee ko xaala moo nek ni de mixtape quoi. mais pourquoi pourquoi tu as choisi le titre xaala lan mooy xaala. yaa eh, xaala gars yi bëri moom la xaar quoi te boo xoolee c'est pas diabolique hein. juste je suis pas un rappeur trop spirituel mais samay biir phrase yi may rabeeg yooyu noonu yëpp. son bu nekk boo si déglu benn moo di nga dégg benn moo arab quoi xaala mu ngi basé woo si xaala rasulullahi boobu mm-hmm. xadis yi gars yi fii boo xoolee gars yi bëri jàng nañ arab boo xoolee quoi xaala rasulullah xaala boobu noonu laa dagg quoi. Mm-hmm. parce que game mi da doon gis au début gars yi ku ñëw danaan ñëw yee. Mm-hmm. balaa moo wax danaa yee quoi yee yee loolu moo fi bëri woon quoi ma ne man foog ma créé la nga xamante ne. su ma nee xaala rek nañ xam ne président yi moo ñëw quoi. te xaala boo xoolee lu muy tekki maanaam wax na léegi wax na boobu pour mu am sens fa nga déglu président rek rab ba pare su wàccee nga ne boobu wax na wax quoi wax na loolu moo waral xaala bi quoi léegi sa benn aka la maanaam alliance quoi ni ko gars yi di waxee aka boobu nag laa jol def ko comme sous forme de présentation mu nekk projet bi quoi mu nekk xaala bi ok ok donc mais pourquoi nga def ko waaw treize titres boo xoolee soit staff bi la parce que boo xoolee son yi ñu job ak son yi nga xamante ne bind nañ ko te prise ñu ko bëri na quoi. parce que dañ ne comme c' la première fois. c' est pas l' appel gars di def ay son yu bëri bëri quoi parce que tamit gars yi amatuñu jot. takk seen kasi di déglu son yi yàgg yu mu bëri quoi. ñu xool ya nga xamante ne quelques treize titres yi nga xamante ne c' est intéressant xam ñu jël ko jox ko gars yi mu nekk benn premier projet bu ñu génnee def ko treize jox ko gars yi quoi. nga defe ni euh, album bi dina mën a imposer aussi en ce en ce moment. yeah pourquoi pas pourquoi pas parce que gars yi xam nañ président jaraax kenn waxtul président yi quoi mais hors side parce que hors side li ma la wax comme sànq sama début bi may ñëw. dama daan wàcc si concours yi. à travers Walf TV Bour Mike waxi wurus challenge hip hop hobet hobet. Mhm. Dakar seen day saay fa ba tey instant bi nii ay animateurs yu bëri. hip-hopeurs yu bëri macha allah quoi pour être modeste gars yi bëri xam nañu quoi te reconnaissent nañ talent bi te gëm nañ ne war nañ mën a imposer fu gën a fu gën a fi ñu nekk nii quoi incha allah. waaw du ñu mën a wax lépp ci album mais dañ ciy jël quelques titres rek ñu waxtaan ci. Mhm. pourquoi une vie de boy fit une vie boy boo xoolee li ma gën a inspiré aussi sound bi sax parce que. ni may gisee yenn booy yaraax yi quoi. Mhm. je peux pas mën naa généraliser quoi yenn booy sénégalais yi quoi. Mhm. parce que une vie de boy da ngay gis li may wax si son bi li may développé si biir son bi yenn nga xamante ne dañoo yara di ko quoi. Mhm. xam ñu seen avenir. xamuñu lan lañ bëgg ëllëg. Mhm. comme par exemple da ngay dox tout récemment rek maa ngi dugg parkaan daje ak ay booy ndaw. Mhm. te seen tabac romb di ma romb dox naa ma yee président ma ree romb bàyyi leen ñu dem quoi. Mhm. parce que ay booy lañ quoi mais xamuñu mais lu tax xamuñu c' est parce que secteur yi ñu dëkk ñoom ñoo leen influencé si bagage yooyu noonu quoi. parce que boo demee buuru yaraax yëpp gars xam nañ ñu fay demee yooyu noonu quoi pour bañ yenn gars yi. Mm-hmm. ay boy yu ndaw nga xam ne da ngay tiim sa mère di ko saaga mm-hmm. wala nga gis ka nga xamante ne ëpp na paam doole di raag ak moom genre yooyu mm-hmm. noonu quoi loolu laay développé si biir sound bi def ko en featuring ak ko si game bi ñu gis aussi benn titre boo xam ne euh, dañ si gis nga ànd si ko xam ne internationalement dañ ko xam tu vois muy Clayton noo def ba defa moom diw est-ce que yomboon na Clayton Hamilton di ko di ko di ko saw daab de passage parce que son bi nii boo xoolee au début nekkul moom sax moo ko waroon def quoi mais xam rek lu yàlla tudd moom loolu mooy am quoi son bi mooy Sénégal quoi moom laa def tout récemment benn vidéo mhm. officielle génnee ko mu nekk dernier single bi boo xoolee featuring bi c'était pas diabolique ah parce que dafa fil li may def man tamit mhm. ma fil carrément li muy def mhm. quoi à travers Rosso ñu def featuring bi mën ak moom mu ñëw déglu saa mu ne yaay li naaj na bu ko waaye dina si dina dina gën a am ampleur quoi. Mhm. saa yi ñëw def affaire bi gars yi apprécier ko boo génnee gars yi naa la son bi naaj na naaj na naaj mu nekk quelque de télé de très généreux xam nañ ko bu baax si game bi. boo xoolee projet bi bëriwul sax ay featuring man la Zina ak authentique mhm. gars xam nañ ko. Mhm. ñoom ñett kese laa def ak parce que loolu sax laa lii yow gis nañ ne yéen ñaar te ñu waxtaan lu bëri de sa la sa <laughs> waaw loolu moo jaaxal gars yi bëri ah. mais pour dire pour diir vrai au commencement authentique ay mbokk lañ quoi. Mhm. ay mbokk lañ. mais même mbokk bi bu fi nekkoon tamit. Mhm. te amul talent. Mhm. du ma defal moom featuring quoi. parce que boo xoolee essence bi nii am na tour si game bi am na tour yaraa gars yi ñu ngi koy bàyyi xel. su fekkoon mbokk ak mbokk wala gars yi nag gars yi rek. je pense que mun naa dem jëli keneen ka nga xamante ne mën naa ko def mais tamit. dama recognize talent am quoi. te son bi lu tax ma gën ko def def ak moom. mooy li muy wax quoi. Mm-hmm. son bi mu ngi tudd OGBY. Mm-hmm. OG Boy Yaraax quoi. Mm-hmm. parce que lu tax ma ne OG Boy Yaraax mooy original Boy Yaraax. OG Boy Yaraax mooy ñi koy représenté li may wax ci son bi. ñi teg saafa yi ñi teg concert yi. gars yi di teew quoi. ñoo ñooy OG Boy Yaraax li gën a influencé son bi mooy. y a des rappeurs wala am na rappeur très célèbre quoi gars yi xam nañ ko. Mhm. man la boo yaraax gën a jër caraax et cetera quoi. Mhm. mais gars yi xam nañ ñooñu original boo yaraax yi. Mhm. mooy ñi koy représenter di teg saay fa yi di teg concert di génn si concours di représenter yaraax dignement ñoo ñooy OG boo yaraax yi. soo moom si loolu la ñuy wax maam authentique quoi ñu bind ko de telle façon que ni ñuy exprimer woo si biir texte bi. manam lepp yaraax la bo déglu ego trip la mais lepp yaraax lañuy wax. léegi qu'est-ce que ça te fait yow nga nek booy yaraax ngay imposer aussi game bi qu'est-ce que ça te fait quoi. waaw lool mom bo xolé loolu laa yàgg wax ci concert yi quoi mm-hmm. yaraax moo tax ma hip hop. Mm-hmm. parce que au début yaraax dama nek ben saa ba nga xamantene dañ ko négliger. Mm-hmm. gars yi lijjantewuñu yaraax quoi. cafétéria mo na ne temple hip hop yaraax la. mais taamul hip hop yaraax ba nga xamante ne waa yaraax amuñu fa wàll ngay mhm. gis ay daara ji PBS amul gars yu nekkul si gembe yoo xamante ne ñoom mhm. jaar nañu cafétéria mhm. xam nañ cafétéria bu baax ay fukkeen ko quelque chose comme ça mais dañuy gis ne yaraax gars yi dañ ko xaw a ñàkkal fayda si yenn affaire yu bëri muy hip hop muy lamb muy football ak yooyu noonu quoi parce que da ngay dem yenn saa nga ne yaraax ñu ne non fan mooy yaraax genre yooyu noonu quoi bu fekkee yow bëgg nga yaraax dëgg gars yi ba lay négliger loolu da lay métti quoi. Mm-hmm. man au début j'étais tout simplement benn mélomane. jël mm-hmm. samay CD di get sound yooyu noonu quoi. Mm-hmm. mais après ba ma gisee ne Yara xawul am gëdd si game bi. ma ne a pas ma imposer. si laa defee woon sama benn son tuddee ko am in the building. ma jël sound bi jox ko bugg seen kumpa mu déglu ko. woo ma téléphone mu ne ma booy lii est-ce que sa premier son la. sama premier son la quoi. mu apprécier mu ne ma wallaahi boo joobee di nga am lu bëri si game bi loolu moom gën a influencé. ma mm-hmm. sëgg si bagage yi nekk si nii tey di ko xasala ba gars xam président yi. quoi macha allah donc mais yow ban rapport nga am ak yeneen rappeurs yi. amul amul amul ak kenn problème quoi xanaa nga gis président di ko suñ bañ nii après xam nga boo tourné après ngay def leneen quoi mais man personnellement awma ak kenn problème quoi ñëpp jaam laa seq ak ñoom quoi. ak yeneen artistes yi pas

c'est sama premier projet solo parce que avant comme ni avons ko waxee woon sànq dama nekkoon ci groupe quoi. Mhm. et comme demain c'est mon premier projet solo promouvoir ko dawal promo bi am vidéo officielle yu génne. Mhm. c'est bien mixé par nos regards gars quoi. Mhm. à part ça comme chaque année dañuy def buzz des shows quoi. te buzz des shows bon boo xoolee mooy sama anniversaire 30 avril la. première édition on dañ ko defoon Big Safa si koñ bi deuxième édition. dans le dañ ko defee woon cafétéria def ko entrée. et cette fois comme te génne nañ projet bi te dañoo bëgg waa yaraax yëpp gars yi déglu affaire yi jot yi benn façon ba nga xam te ne leen di remercier la quoi def ko benn concert gratuit 30 avril bii ni ñëw incha allah ñu jox waa yaraax xëy na prochainement tamit bu nga defaatee ñu defaat ko entrée quoi mais cette fois ci c' est gratuit quoi. pourquoi nga choisir def ko gratuit lan moo xamante ne dañu bëgg woon waa yaraax mm-hmm. xam nga ñëpp amuñu opportunité ñëw paas entrée ak yooyu noonu quoi teewul bañ ko defee daaw. en TV mu ngi fa woon gisoon nañ ni dafa fees dell gars yi ñëw yëngal mais da leen leen yenn gars yi toog si koñ yenn jigéen yooyu noonu quoi ñu bëgg ñëpp jot suñuy message quoi raison pour laquelle cette fois ci dañu décider def ko gratuite juste une façon de remercier waa Yaraax quoi si lépp li ñuy support quoi. lan mooy sa mot comme gars yi dem jëli mixtape bi xaaral du mixtape parce que this is the darkness nekkul ay caaxaan quoi ñi xam présument yëpp xam nañ ne du génne bagage coomo quoi pour être mais mixtape bi am na ay featuring yu doop am na ay titres yu doop pour nga noonu nag foog nga dem déglu bagage yi quoi bagage yi seerul CD 2000 francs lay jar clé USB 4000 francs lay jar ku ku si bëgg a jot nag mën nga woote 77 983 27 54 wala 77 764 10 26 sinon tamit gars yi nekk extérieur mën nañ ko am si Jaaba Music bi quoi bu ñu demee Jaaba Music dinañ fa fekk projet président bi quoi. di wax waa Yaraax seen doom la président yi seen doom la ñoo mën a jàppalante suñu biir quoi. di wax yaraax Sénégal woo waa gars yi jàpp si projet bi yeneen bagage yu gën a xaay ngi ñëw quoi clip officiel yaa nga xamante ne titre yaa ngi si biir fii nii dinañ ko def ay vidéo officiel incha allah gars yi nañ si teg seen bët yaakatul ngeen pare buzz day show ñu concert nga ni concert yaraax gars yi génn ñëw fekk suñu marché yaraax ñu yëgal gësam quoi donc di remercier képp koo xamoon yaa ngi seetaan di remercier président si disponibilité di leen jox daje si beneen jotaay si yeneen émission tànn Ladies and gentlemen, fresh music. Prison Mike and Clayton. On my way, way, oh, Need you Sénégal Ici c'est l'homme le plus fort qui se régale On dit la justice c'est pour tous mais elle est inégale Oui on a la ver a passa yaka dal do ko mam mawdo bamba do ko mam bay do ko cheikh omar fouti yu do ko limamu lay bu ñu ñakoon yi rayu kay do ko bi tak way way way ngala way ku jamm naax say senegalu ba doole yi ñoo dëkke ko lo ko lo ñaka solo nguur bi tek ñu coono jeune ñako bulo dëkk si ndol dëkk si ciol teewul ñu ñako bolo mu nga ñu faat mu nga ñu not mais sunu ngor du jaay senegal gu nguur gi di sàcc te du mujj fenn jàpp étudiant yi faat te du mujj fenn innocent ñu jàpp tëj te du mujj welcome by my side a si nga Sénégal ngaay Sénégal ngaay wax ji dafi bëri tax you fenn ñi ñi jiite ñoom dañu mën a fenn I'm a fine, so I'm indépendance su Sénégal ci làmmiñ rek la yem président bu fi toog ñëw fenn ak i la yem démb Senghor Diouf Wade tey ci Macky la yem fenn ci xale lañ ko miin waaye ci Macky lay am même système politique ci réew plus de cinquante ans complexe roy tubaab bàyyi fi Cheikh Anta Lumumba Mandela Thomas Sankara suñu njiitu réew tey yee gën a sanglant boo xamoon lu ñuy dund ak li waajur yi daj ñi mujjee dee ci hôpitaux ñàkk ku leen focc ñooy doomu baa doole yi ñun la jël bi kilifa diine yu bëri politique bi jënd c'est très rare nga gis fi ku dingat président sëñ bi nee na sëñ bi nee na lee fekk sëriñ respect à nos morts ñi laaj fi sacrifié Mbour vers Wakam du ko le le coupable on en a marre de ces dirigeants incapables nañu jàng ba maxe jàng ba xobi daas ba ras ba connaissance ba reconnaissance condoléances Bassirou Faye Balla wax ji dafi bëri tax da muñu fenn ñi ñu jiite ñoom dañu mën a fenn Sénégal ñaay Sénégal Sénégal wax ji dafi bëri tax da muñu ñu jiite ñoom dañu mën a fenn Sénégal ñaay bu noot sama askan We not some Askan And I'm a fat some Bakan We oh, not some Askan We not some Askan We not some Askan We not some Askan We not some Askan And I'm a fat some Bakan All my askings, all my ways don't look out. Watch it if you better talk them when you're fame. Oh, you need cheating, you don't, you're manifesting.